الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مكي مكو جلتي صب سيدنا محمد جنا بن سنت يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين مساو تيونو دي لين بالو حق دي لين بال دي نيان يالا يالا يالا دافا لين جام دافا لين سوتورو دافا لين خيوال تي درجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتبارك الله دو نيو مبولم تلسبكتاتور ييغا خامن نيغي بايي خيل سين تيليفزيون سفينه تي في فتبارك الله تيليفزيون بيغا خامن دا فا اندك جامونو واي نا رواتينا دين الاسلام لو بغا خام سوالو دين بايي خيل سفينه تي في نده تبارك الله في لا خام خام دي بالي ما شاء الله دي نيان يالا كير غي يالنا جيم كانام ني في ليغي يالنا يالا دافا لين جام دافا لين سوتور تي درجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكي مولانا سبحانه وتعالى دفع وقت القرآن الكريم نيه ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun tabaarakallaahu bur yàlla nee na wëllu yàlla yi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñoom day duñu jàq mukk fa ñu jëm ndax lañ fay fekk mooy ngir mënde yàlla waaye duñu jàq mukk ci li ñu bàyyi gannaaw ndax li ñuy bàyyi gannaaw yàlla moo ci teg loxoom fa tabaarakallaahu ñu bëgg a waxtaane benn góor muy alhaji mam bay job fa tabarakallahu di muqaddamu mam sidil haji malik radiyallahu taala anhu nga xamne mam sid sidil haji malik moko jangal ci ca njarne moo yar moko ko jox werd salaat alfatiha fa tabarakallahu ndax tabarakallahu mam bay job mu ngi judd en 1854 way juróom bu gor mu ngi tudon mam gan job fa tabarakallahu way bu jigen tudon mam jama pay masha Allah, mu nekkon góor gu bax go xamne ne commerçant la won wala bok jamono jooju ma ne woon peret la won ci jamono joju le fa tabarakallah masha allah mu te mooy ñi nga xamne di day jël ay mars day jël euh, financement ci banki di jënd ay dis di jaay di dello, mu nekkon ci lool nak nekkon ci dëkk bu ñu wax kel don fa daan dolem ndax serigne babakar si neena man kana za hirfatin falyuhya abadan mo gën di tuumaal yalla ak dëkk ya sëriñ Babacar si nee na ku am métier na nga ko dundal moo gën ngay tuumaal yàlla ak dëkk ya naan yàlla demaa seetaan yàlla tabaarakallahu ah dëkk bi neexul fekk ya xëyul liggéeyoo wala bokk sa liggéey yaa ko fonkul toppatoo woo ko kon bu dëkk bi dëgëree yaa ko dëgëral waaye yàlla dëgëralu ko yàlla moom boo sababloo rek mu jàppale la ku jéem yàlla jàppale la fa tabaarakallahu góor gi maam Mbay Jóob nag nekk ca kel dafa daan dooleem boobu maam Seydil Haaji mu ngi ci njaar di yar muqaddam di leen jàngal tabarakallahu ndax euh, bul fàtte ne maam Seydi bi mu ñëwee li mu woote mooy xam-xam alaa ya bani haza zamani daawatukum li ixyaai diinin bil ulumi ajibu nasaxtukum lillahi la gayra matlabi fa awnu ilahi alalamina xasibu maam Seydi Haaji Maalik bi mu ñëwee dana yéen doomu jamono ji maa ngi leen di woo kaay leen ñu dundal diine waaye diine kenn mënu koo dundal te teguloo ko ci xam-xam kon ñëw leen ñu jàng xam-xam maam Seydi Hadji Malick lal daara commencé jàngal gaañ yi jàngal leen ba ñu fes dell tas leen nag ci àdduna bi moo tax foo dem naasir xaq bil xaqi talaatul xaq bil xaqi ifaadatika minka ilayka foo dem mu ngay jolli waaye foo dem ci Sénégal daara yi fa tabarakallahu diine ji tasaaroo grâce à maam Seydi Hadji Malick fa saara zawaayahu fi quraha jamiuha milaan bi fawji raakiina wa sujjadi góor gi maam Mbay Jóob nag nekk ca kel dégg jaroo jaloore maam si xaaji Malick xam-xam baak wilaaya gaag tabaarakallaahu mbaax ga mu sopp ko te gisag ko bi maam si xaaji Malick bayee ba noppi nag am benn taalibeem boo xam ne daf ko yónni woon pour na mu dem kel jëndal ko fa ay buum yoo xam ne moom lay yeewee li nga xam ne jot na ko bay ba noppi ngir bañ mu yàqu tabaarakallaahu bi ndaw li yeggee kel nag di jënd ay buum ci la foofu la dajante góor gi maam Mbay Jóob Eh, tabaarakallaahu ñuy waxtaan mu xamal ko ne ko nag maam Sidil Xaaji Malik moom mooy yebal mu ne ko ah góor googu day góor gu ma sopp la ku ma bëgg la fa tabaarakallaahu ba tax tey jii daal eh, dama bëgg wuutu ko insha allahu jënd buum yi ci sama alal def ko muy wëllëre sama diggante ak moom keroog bi mu jëndee buum yi ba noppi jëlaat xaalis bi dollawaat ko waa ji ne ko boo demee nga joxaat ko maam Sidil Xaaji Malik ne ko def naa ko muy sama wëllëre sama diggante moom ndaw ndaw li yegsee maam Sidil Xaaji Malik ko ah balaa maa jëfandikoo buumi nag faw ma xam ki ma jox buumi kan la ak tamit alal ji fan la jóge ndax maam Seydi Xaaji Malik dafa sàmm woon bàyyi woon xel yàlla lool bàyyi woon xel li muy dundee ndax demoon na ba bàyyi lekk yàpp bàyyi naan soow moom Maodo ngir rekk bañ gàtt bi ruur ruur toolu jàmbur tabaarakallaahu mu lekk yàpp ba lekk xaq wala mu lekk mu naan soow ma daal di lekk xaq kooku xam nga ne dimension am ci ragal yàlla kenn mënu koo natt ci la ndaw li delloo bi mu delloo nag ci la ko góor gi mam bay jóob xamale ne ko ah li ma jënde buum yi sama alalu bopp la lew na ma doom si maalik dama ko def fasante ko wóllëre sama diggante ak yow mam Seydi Hadj Malick daal di fasante moom wóllëre nag ba looloo waral mam Seydi Hadj Malick bu ma saani ñëw Dakar fa tabarakallahu dina ñëw ba wakkaam ci euh, quartier bu ñuy wax sanc ndax góor gi mam bay jóob euh, tabarakallahu foofu la dëkkoon mam Seydi xaaj Malick daan ñëw fa di ko seet si bi mu ko njëkkee seet si ndeysaan fekk góor gi mu ngi dëkkee ay néegu ñax boobu mbokkaam tabax bariwu fa ay néegu ñax ñoo fa am waaye ndeysaan góor gi nag ci pas-pasam ak bëgg si di xaaj maalik ak fonk yàlla ci la dogoo ne insha allahu taala bu déwénee balaa maam sidil xaaji maalik di ñëwaat wakkaam gii dinaa ko tabaxal bërëb boo xam ne bu ñëwee fi lay ne fi dalloo nga xam ne dina nekk ci condition yi baax fa tabaarakallahu yàlla dimbali ko nag balaa déwén sa la mu mébétoon bëggoon ko ci boromam yàlla sottal ko fa tabarakallah bu mu tabax bu bax bu mucc ayib bo xamne bi maam Seydi Hadj Malick dellu Dakar ba set ci ko foofu la ko dalal ba ndeysaan bi mi genn aduna sax mom góor gi mam mbay job bi mi genn aduna ndeysaan dene a ah, fi kat tabarakallah bërëb maam Seydi Hadj la su ngeen de dondu da ngay ko fi bayyi bu len ko laal motax mag ñi daan wax naan waka moy wanagu moy wanagu tiyawon fa tabarakallah lolo taxoon ndax bërëb ndax ndax ndax bërëb bobu ndeysaan maam Seydi Hadj fa la daan nek mos naa faa doxantu ndeysaan tabarakallahu ñu won ñu won ay téere yu bari mbindu maam Sidi Xaaj Maal macha allahu taala néeg ba macha allahu ba tey fa tabarakallahu boo demee macha allahu mu nga fa. Eh, sëñ Babacar si jaar na fa alxaaji Mansour inspecteur tariqa bi jaar na fa maam si maam si alxaaji Abdu Dabaax sëñ Babacar si Mansour alxalifa dafay ñëw tabarakallahu góor yàlla yi bari dañ fay ñëw macha allah bu nekk tabarakallahu bërëb bu tedd ca wakkaam macha allah góor gi alxaaji Mbay Jóob mam sidi xaaji ma dafa tok ba bis mu ne ko dama gënt ngay doxantu ci mbedd makka ya ndeysaan ci at momu la bayyi commerce ci la wajale bopam nak fa seeni aji makkatal mukarrama ndeysaan ba muy dem dafa dox mom goor gi alxaaji tabarakallahu mbay job en 1892 la aji makkatal mukarrama ñibisi 1893 kon 1 ala def ci yoon wi ndax bob makka boy dem da ngay dox bokk ak léegi nga ngay war sa avion quelques minutes nga yegg déedéet boobu màkk dafa metti ku amul pas-pas amuloo ngëm-ngëm doo dem màkk fa tabaarakallaahu ci la góor gi doxee dem màkkatal mukarrama ndeysaan aj ajam gu tedd googu bi mu ñibbisee nag tabaarakallaahu tombeek soxnaam am doom tabaarakallaahu doom jooju nag nekk jigéen mu ne ah, kii nag dama koy tuddee yaayu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di aminatun bintu nga xam ne si sida xaaj maa leen aminatun naqiyat an saa'iri tuhami euh, amina mii di wajuru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam daa set wecc kenn amuloo koy tuumaalee jigéen ju sell jigéen ju yiw jigéen ju nangoo jaamu yàlla waaye jigéen ju toogoon ci wetu waajuram bu jigéen di royukaay ci bépp jigéen ju nar a baax fa tabarakallahu ma sha allah mu tuddee ko nag sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sona amina moomu moo jur alxaaji kër Guèye tabarakallahu ku miin wakkaam xam nga xam nga góor googu góor googu nag moo jur sama yaay booy soxna Aytu Guèye ak soxna Faatu Géey tabaarakallaahu euh, di soxna alxaaji Alsaan Kebe di sama yaay ju baax sama yaay ju ma bëgg lool sopp ma lool fa tabaarakallaahu boole maa ngi mbokkam yépp macha allahu waaye góor alxaaji kër Géey googu moo jur alxaaji Mamadou Géey mi nga xam ne moo jur alxaaji Dawru Géey ak ak rakkam yépp fa tabaarakallaahu macha nga xam ne alxaaji Maam Mbay mu jot fa tabaarakallaahu gi alxaaji Dawru Géey mii ak góor gi alxaaji Ngaala Géey ak góor gi alxaaji Kéba jóob ak góor gi alxaaji Mansour Diop fa tabaarakallaa ñu ngi koy amal bis di ko di ko màggal di ko fàttaliku ndax tabaarakallaa góor yàlla yi tedd yi mel noonu mag ñi baax ñu mel noonu ah, dañoo war di waxtaane seen i jaar-jaar di waxtaane seen i jikko ndax fa tabaarakallaa ñoom ñooy tax xale yi xam fi ñuy teg seen i tànk ndax fa tabaarakallaahu njàngale mag ñi faw ñu koy delloosiwaat ndax xale yi di ci mën di jàngee fa tabaarakallaahu ndax li nga ciy déggee rek mooy liggéeyal nit yàlla dafa am solo yàlla moo wax ne man aada li waliyan faqad azantuhu bil harbi yàlla nee na ku contre sama wëllu yaa ngi may déclaré guerre moo tax ku sopp wëllu yàlla yàlla sopp la te boo soppee wëllu yàlla li ko yàlla defal ci ay taraanga yàlla di ci nat di sédd la sédd gi la yàlla sédd nag mooy tax fa tabaarakallaahu nga mujj mel ni moom moo tax mboolem góor yàlla yi nga xam ne ñoo soppoon moom Sidil Hadji Malick toppoon ci ginnaawam di sonn ngir moom koo ci dem ci goxam fa tabaarakallaahu ñu ngi koy waxtaane waaye koo ci damit turam ba ilaa mi din du fay niki noonu góor yàlla yépp fa tabaarakallaahu moo tax nangul nit yàlla dafa am solo góor gi alxaaji mbay jóob nag nekkoon ku baax tabaarakallaahu mu jug dundam dem na ba nekk imaamu ratib te mi ngi koy doon maam sidil xaaji maal radiallahu taala anhu moo ne nañ ko al imaam maam sidil xaaji maal na kum xool ba nañ ko fal imaam kooku fa tabaarakallaahu am na cër ci yàlla tabaarakallaahu waaye ragal na yàlla ndax maam Seydil Xaaji Malick du jiital du du fal imaam ku ragalul yàlla du fal imaam ku maanduwul du fal imaam koo xam ne dafa tabarakallahu ma sha allahu tegul ci yoon wa kon góor gaa ngi noonu nekkoon góor gu baax jël alalam gépp tabarakallahu daa ko financé ci yoon yàlla boo demee wakkaam tey grande mosquée ma sha allah bu fa nekk suuf sa góor gi alxaaji mbay jóob moo ko moomoon def ko ci yoon yàlla kon kooku am na lu mu liggéeyal yàlla tey nag ay jabootam ñoo fi nekk fa tabarakallahu ah, maa ngi profité di nuyu soxna jooma Guèye di sama jigéen tabaarakallaahu di soxna su baax fa tabaarakallaahu bëgg maamam lool macha allahu waaye doon jàmbaar moom it ci yoon wi yàlla na yàlla defal ko jàmm defal ko sutura di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne fa tabaarakallaahu al awliyaa ñu ngi noonu ñooy soppe yàlla yi ku leen bëgg yàlla bëgg la ku leen sopp yàlla sopp la waaye ku leen contre yàlla contre la waaye ku leen liggéeyal yàlla nadd ci seen ci ci ay ay mayam sédd la ba ngay saawaan di baawaan kon mbokk yi nañu fonk wëllu yàlla yi waaye nañu fonk sunu mag yi baax yi magi Sénégal yi mag moo ci jàpp fa tabaarakallaahu université la mag moo ci jàpp fa tabaarakallaahu soo ko waxtaanee mën na defar société kon mag ñaa ngi noonu yàlla ñu yàlla taaf seen barke ci daraje sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu